Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya jamaatul muslimin. Waabe sama waaji. Alaaji Mutala ni ngi lay nuyu kenne gi Angleterre. <laughs> Wa me Fadam nam na la. Billahi ma laa raw Alaaji Mutala. Wa me Fadam lu rew mi wax. li rew mi wax dal moy may sa xarit mi jox mi nga xare ni ci sa jox yurum ndu mbaan bi. Mhm. dafee bàyyi yarax bàyyi fi faas uh-huh. bàyyi fi pikin bàyyi fi géejawaay ñu ne ko rek ñu ne ko ñu ne ko may sa foo jëm mu damay dugg damay dugg fi nga mooy caare géej botala taxaw na moom motala lan nga yëg def na erreur bu rëy def na erreur bu rëy kan ma def erreur Boy Niang 2. Fadam damay nuyoo ba pare parce que gëj nañoo jàkkaarloo. dëgg la du la ma neex parce que man. loolu nga wax waaw man boo ma gisul rek xamal ni li sëñ Abdoulaat wax rek ku am jot doo am jom ku am jom doo am jit waaye dara waaye dara raw ma ci live wallaay alaaji mutalla xam naa lamb mooy sama sport man amateur laa xanaa xamoo amateur dëggantaan njaay bu yëngoo lamb daa war a yëngu. dëgg la. wala faram déggoo ma. dégguma delluwaat ci loolu. gars yi dama leen di wax ni leen dee leen génn ay ñoom Pape Diop Sall ak gars yi gis nga léegi Sénégal bu sox sonal sa bopp. booy saw ci mbedd sax nanga ko calculer gaa yi mën nañ laa vaar mais bu mu la tee sawaat boo bëggee tuur dugub demal tuur dugub. dëgg la gis nga bu fekkee ni loo yëkkati seex sa gémmañ ñu ne la déedéet nga yàbbi doo mas a seex. man amateur la amateur da ngaa war a da war a maanaam kaddu amateur ay yamb la war a doon ci amateur yëpp. gis ki tëgg lamb lamb ju jar la bëgg ki tëgg lamb ñu waxtaan ci la bëgg. ñun lu ñu suñu borom defal bu fekkoon ne dara desu ci lu rek wax dëgg yàlla nag euh, mënoon na noo def leneen waaye lambay suñu espoir ah, dañ koo bëgg gëm ko dund ko nag daj ci lu ne. dëgg la waaye dinaa benn mbir boo xam ne na ko xam. muy lan. Fadam est-ce que xam nga luy guuta boo ñaa de dugg na ci guuta de. guuta benn ma ma daan dégg mag ñi di wax. maa la wax lii te ma waxaat la beneen biir. ñëwal nan la boo ñaa dugg ci guuta. Euh, làmb dama cee jëlaat yeneen responsabilité xam nga bi ma gëjee dégg ba léegi mat na deux mois waaye dama doon booleke rek xam nga booleke. mooy lan. maanaam dafa ñoo xam ne dama leen doon boole ke rek ñi ma doon jox ba di ma sonal te xaw ma leen di ma jox fii man deux mois Fadam dama lay wax ne la gis nga àddina da ngay wut jàmm wala nga wutu ay te nun jàmm la wut moo tax ñuy waxtaan ci làmb. wallaay ndeysaan wallaay jàmm jooju nga wax day moo tax nuuru làmb li ma làmb li ma xam nga nit ñi dañoo comprendre lan mooy gis làmb boo ko xamut. Mhm. génération yi nga xam ne ñu commencé seetaanee làmb ci diggante 2004 ak 2002. 2004 dem dem ñooñu ñooñu ñooñu maanaam làmb da leen a réer. ñi nga xamante ni sii ni commencé lambi ci ce kalaaf garçon bi ñom modok ñom balle bi ni génn lan commencé top lamb wala bi ci wé ñoo ñu lamb da leen a deug la. manam bëgg lang ak xam lamb di ci wax dafa bokku bëgg lamb boko ko mbeur mi bu ci nit waxee nga ni lu neex nga ni ko ni lu la neex nga ni ko ok bu ci xol la naqari nga ni ko ni te nun loolu andiwuñu waaye man murtala may wax de man de man de Fadam fi ak ma fii ak yaaga gis muy pousse auto ci mbedd yi ngi sante yalla ndax jaakatu moteur la <laughs> wala déggoo ma. maa dégg foo gisee oto bu nii na sa xel dem ci man ci côté yaa ngi paan gasoil bu bon bi di ñëw ak bu bon bi di ñëw xam ne sama liggéey ngi dox waaye fu mu wàttati làmb laa wéttali ko. dégg loolu. amateur da war a wax amateur danga war a wax loo gëm parce que man dama leen ni yéen ku musul perte ci xaalis mosoo perte 1000 francs mosoo jënd billet loos 100000 francs tubaab bu joor Tyson lan ma jëkk dugal loos te man boobu noonu yoruma xaalis te dan maa dagal billet di dëggal li nga wax nii boo duggee di foncé waaw mbaa nga dugg caaro yi mbaa nga dugg post caaro yi ak gaa yi jaay pees ndax mais dina ma dooli la ci benn mbir fadam pour nga xam ko ñëwal est-ce que fadam xam nga ni sëñ Modou ñaa moo ma am xaalis Sénégal laaj ma lu tax nu mu la tey am xaalis moo tax gaa yi naan Mourtala dem na vaar man leen yéen da ngeen a feebar xamu leen luy vaar gis sëñ Modou ñaa bi mu jëkkee tëgg combat dix combat yi bi mu ko jëkkee tëgg Sénégal dix combat moo jëkk a tëgg Sénégal bu ñu ko jëkkee tëgg Sénégal bu ñuy dugg stade dañuy dugal lu mat cent cinquante mille francs mais bu ñu duggee dañuy gagné ba deux cent mille perte est-ce que xam nga lu tax ñuy perte mbër sëñ Modou naa daan jëlee ci mbappat mi di leen génne xam nga daa génne mbër yu bari ñun dañ leen daan topp ci mbappat yi léegi nag bu ñu ñëwee bu ñu leen indee arène ndekati du mbëru arène ñun ñu leen xam ci mbappat bu ñu toog daa di daan ne përie naa ci booy bi nga du nga xamante ni ay ñoom wax dëgg yàlla rakku jigaan saane rakku lang saane yi nga xamante ni si ñooñu dañoo jigaan jigaan saane ñooñu kenn dalu leen laal yaa ngi dégg ah mm-hmm. jàpp ñoom laay sigaar lakk ba magu baay mba ñoon bi yeeg yooyu noonu boobu ñu leen kiyee ci mbappat yi mm-hmm. buñ leen toppee ba ñëw ci arène bu leen seen mur dinaa tëggee dañuy génn suñ xaalis daal di ñëw daal ne teg naa ci diw ndekete kooku du gis xam nga mbërum arène ak lambi arène dafa lambi arène ak lambi la la lambi mbappat lamb waxtaan la waaye arène lambu ay la daa am lambi waxtaan ak lambu ay moom la leen Modou Lo mane. Moutala. waaw. Boy Niang. Mhm. Reug Reug bi nga yëgee ne taxaw na te nga nekk ca bitim réew lan yëg. dama la ni def na erreur dugg na ci guta. kan moo dugg moo dugg ci guta Boy ñaa 2 moo ëpp expérience ab géew ci Reug Reug. Mhm. waaye bu utiliser wul expérience bi lu dul expérience bi mënu ko may dara ci géew bi man Moutala maa la wax lii. dégguma li nga kay. dellu moo ma gënal. lu dul expérience boo ñaade ëpp ko Modou Lo ba Modou ko ëpp ko ëpp ko kii euh, Reug Reug. Hmm. waaye bu weesoo expérience bi. wala déggoo li ma la wax ni bu baax. yow rek laay bu weesoo bu weesoo expérience bu weesoo expérience bu weesoo bu booy bi bu booy bi indee dëgër bopp mu gis lu musul gis. dara la mënu ci Reug monsieur Khary Mitch Ndiop nga wax de boo ñëg numéro 2. waa dégguloo li ma la wax xanaa man kay sama bopp laay wax man Mourtalla kay maay wax man nee naa oto maa ngi doon seetaan maa ngi doon seetaan laay bi bi may ñëw samay tënee ngi ne la dimanche ak kii li ma gëm man li nga xam ne bu ma tëddee damay xam ne lii moom la ni lii ma ko de mais man Mourtalla li may wax xam naa ko bu baax mais Mourtalla waaw lan la Reug Reug wan ci xarit ci doole ci sañ sañse ci biir géew ak Boy Niang ni mel ci làmb ak li la Boy Niang ci bëri ak ñi Boy Niang daan ak ni nga yàggee seetaan Boy Niang ak li nga yàgg wax ci Boy ci ndaanaanam tey Boy Niang jël rek nga ne Boy Niang dugg na ci guuta guuta nag taxul bu ko nit waxee taxul ne Reug Reug day daan Boy waaye lan la Boy Niang mën a indi ba daan Reug Reug ak lan la Reug Reug mën a indi ba daan Boy dinaa la wax benn mbir bu fekkee ne ci lu nit ñi wane la Reug Reug li mu wane ci lambi Sénégal laa la wax de wane ko ci simple ba dugg ci arène bi Reug Reug wane nga xamante ni dañ koy cooy ci ak dégg rek lañ koy wax Sénégal amul benn mbër mu ko wane nit ñi di teg seen bët dama ne na loolu moom dama la ko wax pour nit ñi ku ko nangu ak ku ko nangul yëpp laa wax loolu maa ko nangu ndax yaa may dégg li ma ñu bu baax bu baax te neel benn fi ko boo ñaa jëlee nee naa bu Reug Reug sàccu doole boo ñaa boo ñaar de mënu koo sàcc doole te moo koy sàcc doole doole laa kattan arrête lambi sénégal ba lambi sénégal da jamono ji wax ni reug reug ak mooduloo ño fi gëna bax entraînement ak caatu yof ak cité bu ngor bo ñëw ci suuf ak mo jabu yof ci ñima gis ñuy physique la mbeur yu mag ci kaw la la wax ni la ñu magni ci kaw entraînement ci ñi nga xamni ño fi am entraînement bu bo xamni man limay may ñàkk am entraînement xagna na euh, kës Ali Ndiaye dina mako gëna xam wala euh, Bakary Sakho limay may ñàkk xam entraînement xamna mbeur mu japp ak mbeur mu jàppat ak mbeur mu weng ak mbeur mu konkorom man mbeur mu konkorom dama ko xam Moutalla lan moo tax nga ne Boy Niang numéro 2 da ngay jàpp ne Reug Reug ëpp ko kàttan. non ko kàttan. non fi mu ko jëlee daf koo daf ko daf ko maanaam gis nga da ko da ko da ko da ko da koo jëlee ci da koo jëlee ci da koo jëlee ci jamono. Boy Niang waxuma la daa weesu jamono de mais da koo jëlee ci jamono laa la wax. Mhm. da koo jëlee ci jamono. Reug Reug entraînement bi mu yor la ak dool xaw ma luy amee ci combat bi de diggante mu tegg mais li Reug yor nii laa lay wax ci lambi Sénégal nii amul benn mbër boo xamante ni si instant bi yor nga ko wane nga ko ci lambi Sénégal amul poids lourd bu nu ñàpp taxaw nekk cent pour cent nekk cent pour cent muscule ba bu taxawee macha allah nga seen ko mu taxaw six abdominaux poids lourd yi ci kaw yépp buñ leen doon compté nu ku ci amul abdominaux duutoo bëre ñoom ñëpp la ñuy nangu seen i leçon. kon man mii sax bàyyi naa bu na lool. wala dégguloo li ma wax yu baax dama la ni mm. li Reug Reug yor instant bi ci làmb laa la wax li mu yor ci làmb laa la wax pour nga nu ko waxal ko wax dëgg te dëgg te yàlla tax mm. ci mbër laa la wax amul menn mbër moo xamante ni si ni Sénégal ci liggéey li Reug Reug yor ni instant bi nii boo ko xoolee di nga ko gis ci moom amul c'est impossible mais Mourtalla ma dama gis ne dama gis ne Boy Niang xeex bi nekk ci moom waaw rapidité bi nekk ci moom mën a bëri bi nek ci moom mm. mu jëflante ak Sa caisse barki dem bo ñay Sa caisse ñu daan dëgg rek bo ñaa dan bo ñaa dan Sa caisse ci avec manière ci xéx ak bëri mm-hmm. boo ñang moomu yeen avantage la ci diggante ak rek mais nak yow nit ñi ngi wax xéx ko wax ñu ni bari mi limay xéx mais gaay gën ñu no xéx dé bo ñang gën na xéx gaay yi waaw gën ñu no xéx dé xam nga gaay yi da ngay gis mel mbër mu def ci benn combat benn action wala ñaan nu daal di ko koy sénégalais sama benn grand daana wax naan boo bëggee siiw sénégal waxal ak nit mbëkk ko ginnaaw suba waxaatal ak nit mbëkk bu ginnaaw suba watul neel bu mel ni neelu fadam bi loo wax croiser la say bara danaan moytu leen bopp bi wala déggoo ma sama benn grand daana ma wax loolu ni ma Sénégal boo ko bëggee amu woy waxal ak kenn mbëkk ko waxaatal keneen mbëkk ko ginnaaw suba watulum neel croiser la say bara ko wax ñu ne leen bopp bi Sénégal danoo gaaw ci diw day diw day diw moytu leen nangam mais dama la ne Reug Reug amul kenn ku ko mën a taxaw instant bii nii imposer ko xeex mu jaaxal ko. ndax la mu talaa. xanaa xamoo Reug Reug bokk na ci mbëri gën a dangereux mais gars yi dañoo comprendre loolu. laaj ma lu tax. lu tax mu talaa. lu gars yi de de làmbaloon a bëri kenn da koo dàqu. waaw nangu naa loolu. léegi nag ba ko ko kenn dàqut ba pare mu bàyyi fu bëri ba nekk dem di defi ab xeex. loo bëgg wax foofu. te bëree dóor lan wax. loo bëgg foofu. amul ku ko ci jaaxal. loo bëgg foofu. amul benn mbër boo xamante ni si instant bii nii di nga indi rëg-rëg loo ko jaaxal ci muy bëri dóor lamb ji amul. expérience moom expérience moom laa wax ni moom la boo ñaa am ci lamb ji mais bu jëlee expérience teg ko fële jëf caaxaan faaxe. foofu laay expérience boobu noonu lan la mën a may booy ñaa ci diggante ba rëg lim ko mën a may mooy mën na koy mën na mën na ko mën na ko mën na ko mën na ko mën na ko yemba ci kaw expérience bi ba am li bëgg mais ndaw yemba di kenn waaw yemba di loo rëg rëg bu yemba di nga daan ko baam lu mu bëgg man nako yemb waaw mën na yemba di loo baam lu mu bëgg ci kaw experience bi mais bu ko forcer bu ko forcer bu ko bu ko bu ko bu ko forcer bu ko forcer dina am lu ko nakari parce que lu dum yek ci mom ta na man la waxat nak benen bir nga xam ko euh, reug reug reug reug reug reug reug reug reug reug reug reug reug reug reug reug reug reug reug waaw waaw lu leer laa lay wax. yaa ngi dugg dafa na non li ma lay wax ni du deñ xam nga kii amee wax la benn affaire gis nga nit gis nga tey jii naa la ne xanaa xamoo lamb ji ba dañ ñi nga xam ne dañuy dund lamb boo ko xoolee ci mbër yi rëg-rëg da cee mm. bokk ak ku mel ni Modou ñoom ni ñuy dundee lamb ak ne gars yi dundee lamb dafa bokkut est-ce que Fadam ma cos ci rek continuer est-ce que Fadam xam nga lu tax Modou Lo Modou Lo jaaxal gars yi ba ci ci ci ci dernier ci dernière a sonal danoo yem ci lamb Modou romb lamb dëkk la yi danoo yem ci làmb mais Moodu daa yomb daa romb làmb. lomb fa gars yi taxaw mu romb leen di dem di def di nekk ci leneen nag leneen nag la fa gars yi ci làmb ak ni gars yi dundee làmb moom mu romb niveau boobu encore di dem. Mhm. ndax Fadam yaa may dégg moo tax ma moo tax fi gars yi ci làmb Moodu du ko weesu dem rëg-rëg mi nak li dal modou da dal ci côté bobu ne fi gaay yi yamoon ci lamb ak entraînement bi man bu ma sey dox ba gis Sénégal mbeur mu nan commencé guma contact wala commencé guno entraînement man mbeur mi man daf may def problème mi ngi melni ni boutique nan commencé guma jëndi bagage ubbi ubbi bitigam li sa problème waaw mooy rëg-rëg nam kenn do ko weddi ci làmb waaw mësa mi ci njob di boo ñaan numéro deux nam kenn do ko weddi ci làmb uh-huh. man su ma déggee li nga bëgg a wax mooy. Uh-huh. Reug Reug yàlla may na ko ci bëre loo xam ne fu mu jàpp Boy Niang lamb ji jeex na. non ja jàppante moom ja ja ja jàppa jàppa jàppan jàppante moom jàppante moom foofu moom foofu nangu ma ko de. nangu wu Reug Reug jàppante Boy Niang. dama ne ñi nekk ci lamb ji ñëpp laal la wax waxuma ne boo Niang kase da la wax. ku ci Boy Niang ku ci ku ci Reug Reug jàpp bu nooyee nooyiwaat nooy nga may ko nooyee ñetti yoon xalaat ñetti yoon nooyi nooyi waat wala déggoo li ma wax ni bu baax. dégguma de na gën a leer. dama leen ni làmb ji ba làmb jee daj laa la wax ñoom ñëpp laa la wax ku ci rëg rëg jàpp bu nooyee ñetti nooyi yu tegaloo. te kaawuwul defu dara ànd ak boppam bii wala déggoo li ma wax ni bu baax. boo moytuwul bala nu ci bala boo moytuwul bala moytuwul bala nu ceete quarante cinq secondes mu mu wan la ginnaaw. ak boo ñaa li gën a garaaw laa lay wax moytul ma luur bu mën a bëreel moytul ma luur boo xam ne dafa nekk am doole ba pare mën a bëri. te ñeme action wala déggoo ma sawaay dama dama ne luur bu man a bëree laa bëgg booy moytu nga moytul ma ko laa lay wax te loolu daa nekk ci rëg-rëg. la Fadam nee ba man Mourtala. loo bàyyi. lu bari ci làmb. ndax lan. maanaam dafa lu ma metti woon ci dafa am làmbi Boy Niang 2 bi mu yeesoo ak Modou Lo benn sëriñ koo xam ne man pour man sax kooku du suivre làmb waxtaan ne teg sama frère Ibrahima Faye ba sëriñ bu mag mu ne Mourtala wéttali ngeen ma Tunisie laa nekkoon di faju mais laay fi dama ko wéttali ko ni ma Mourtala ma ne ko ah mun ma damaa seetaan laay fi di leen seetaan ni ma Mourtala da ma wax ba bàyyi ma daal ni kon ñii man dama yaakaaroon ni man laay fi yi may fawantoo man ak Tony Ndiago ak ak Serigne Diour ak Fadama kii ñun ñoo ci nekk ñun ñeenti personnes yooyu ndekete kon dem naa ba sëriñ bi dem ba Tunisie naan ma maa ngi doon wétilu koo laaj ma ne kon lépp looy waxati war nga ko gëm te foo ko teg. lii lay wax nii lii ma lay wax nii waxay indi. waaw dama dama mhm. ànd a Abdou Aziz Ala Ndiaye dem Gambie. waaw. ma gis président Adama Barrow sama kanam ak. incha mu téye sama loxo xam nga lu ma wax. waaw mu ne ma laay fu lamb yi laay wétilu ko. yow bi mu la waxee loolu loo yow bi mu la waxee loolu ko wax bala maa àgg. sëriñ Babacar si ma yaakaar mu ne ma. bal classe bi ngay classe bal gay numéro 2 bal bal gay ci jam bayiko mané ko duma ko may jam bay la yóbbu din man de bu don man ma ma jàkkaarloog président yow kon de lama ma la ma bala ma egg di continue live bi lama xasse won woon ba pecc coupe du monde bi dina la ko xasse de ban len doré bala ma agali waaw ñew diko jox loxo mu koy bañ xol man muy lumière di ko bañ xool ma ne ko def nga erreur de man de bu ma Makara nuyu ba ma wax ko sama bor yi ma ameel waa àddina bi ba ba man koo fay waaye yow tamit bu ma Adama Barrow bu ma ko nuyoon ba ko li ma ay bor waa Sénégal mais wuyu ma. waaye bu talaa. waaw waxee indi wax. Mhm.